here. سراي لا تهمني لي نياي والد قال جاد بابا انا مقمد انا مقرف القدام دقل ما وخلا لقون بدر Saliou yaa ngi dégg sa way wa ma la wayaloon démb Saliou Ndiaye mii daa wax lu am solo mu ni fii ngeen nekk di tagg yonent bi maa fi waroon nekk waaye ngeen bàyyi ma ci sama indënd te xoolu leen ma ci te man maa waroon toog fii di ko def ndax Aziz Mbaye ak daaw góor ma ne ko wax nga dëgg daa am benn góor daa ñëw ci tànt bi màgget gaa yi way ba yàgg mu yëkkati gaa yi conc ko mu yëkkati gaa yi aw wuñ ko mu ni leen ndokk yëkkati noonu ya noonu ya nga xam ni dafa neex saf Abdou Hamid Modou Hafiz xam na ci dara góor ga toog ba yàgg ni lii may def ndegam dama ko bàyyi di tagg yonant bi waaye boole leen ma ci ay tamalaa yoroon bàyyi ko ñëw fii xanaa ngeen war ma xajal xam nga Maodo dafa ni wa mawliduhu bii sharafun wa xiirun góor ga nekk géwal bu saf xorom ni leen tamaa waroon wa mawliduhu tamaa waroon wa mawliduhu ma waroon wa ma ma ñi ndaw ñi góor ak jigéen sopp yonent bi la ko ca kaw dam daga dama kaw na kali la jara jara na ma billaay wallaay tala sawa janga tëdd madina tu mun dafa waaji yana na umuloo ma uniloo bil waaji yana na umuloo ma ku ci bëgg yonent bi la ko ca kaw umuloo ma uniloo bil مولدي يزيد والإمداد مولدي نبي بسنة أين البيوت بمدمي رقى فوق البراق إلى السماء لخجك ودان له ملائك أيدي لخجك وفي الإسراء قالوا قالوا رأى المولى قد تفقين دفلني عليه قرح مولني شفاعة المقفى كل مولني فنعمده ونشكره دوام نخرجك وكذل المحال من له بدل وكم نبي كان قبل الكون ليعقل نبي كان قبل الكون ليعقل نبي كان قبل الكون مولدي فجان قبل وحي كل نختك واتى والكفر في جور مولدي فخاد الكل عني مولني وسيلتنا نفى وعدينا تبين رسلنا في كل دين مولني وبالعادي دعينا مودني وبالإرسان سترنا كل نخجك وقل خرشي وقل عربي نخجك وقل خرشي وقل عربي نخجك وقل خرشي وقل عربي مودني وصدق القول أقرب زيدني مودني شفيع صفوة مع الروم مودني ودل يعدل المدينة مولني وفي الحجر القدر مولني فذاك الحكم دينا يا يا له دينا يا يا له دينا مولني لهادينا مولني ودان الخير مولني وسرا يا إلهي قومنا نخجك وحنان بل حنان وتبقينا أنت بنخجك وحنان بل حنان وتبقينا أنت بنخجك وحنان بل حنان وتبقينا أنت بنخجك ومدح المصطفى فوز وقل مودني ومدح المصطفى فوز وقل مودني ليغفر لي عفوا بيومه مودني ويوم قمترير زمهري مولد ويوم قمترير زمهري لخجك ويوم قمترير زمهري مولد ويوم قمترير يا يلن ويوم قمترير يا يلن ويوم قمترير زمهري كرجني ويوم قمترير قرقني ويوم قرقني عبوس لخجك إلهي مولني إلهي توبة مولني إلهي ربنا مولني وعسلي والمسيقة والمسيقة samp mbay ba kenn tënu ko mbay si daagu kenn yëngu samp ba kenn tënu ko mbay ya naan dawal bu ko laal yaay mbërum yaay mbërum ci waawanu la yaay mbërum ci waawanu la sëriñ may miskin mu ñëw nga tëral ku aajo ñëw nga si daagu kenn yëngu samp mbay ba kenn fenku si daagu kenn yëngu samp mbay ba kenn fenku naan dawal bu dëkk yaraax bi laay defali dëkk yaraax bi laay defali aqiqal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq bu baax a baax a baax te di leen balu xaq bu baax a baax di leen massawu itam ci coono yeeg toogaay yu yàgg yi yépp te lépp nekk mbégteeg bànneex waaye daal lu fi waay toog yal na yàlla fay la ko lu fi waay def ci alalam yal na yàlla fay ko ko lu fi waay tuur ci ñaqam yal na yàlla fay ko ko ñaq fépp baax na waaye ñaq ci ëtt yonent bi moo gën nag wax dëgg yàlla kon nag yal na yàlla barkeel yépp barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu di jiital nag ci suñu nuyoo ki yàlla jiital ci suñu kanam mooy imaamu raati bu dëkk bi nga xam ne ñu nag moom ci daayira yi ñun ak moom ci kaamil yi ñun ak moom ci tudd yi ñu ak moom ci conférence yi ñun ak moom ci suñu yi nga xam ni ku yëg sa bopp tuuti xeebal ñu ko te dafa rëy ci ñun lépp ñun ak moom mooy imaam Tafsir Alioune Sall ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di koy sargal te di koy ndokkel te di koy wax ni imaam lii yëpp yaay boroom yow rekk la ci njaboot gi wuutu ndax xam ni mag ñëw na ñu taxawal la lii taxawaay bu rafet bi yal na yàlla fay leen waaye itam di ciy toftal nag imaam baal ma rek balaa may nuyu sëriñ bi balaa may nuyu gan yi ma nuyu tey sàkku ci yéen ñëpp nag ñaan may sàkku ci ñëpp ñaan suñu Baay Faal universel bi sëriñ Moussa mii nga xam ni wax dëgg yàlla sànq ba léegi mu ngi fi taxaw seenuma ko moo tax waaye kon ma joxoñ ko dañoo am Baye Fall universel moom daal seetul fu mu bokk li mu seet daal mooy lu baax lépp lu baax lu dëkk bi organisé moom mu def ci dooleem ak ñaqam ak taxawaayam yépp may sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko xaas musaa li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal yal na yàlla fay la yiw yal na yàlla sàmm la làq la fu yàq àggul yaag mbokk yi nga àndaloon yëpp ci tës tëseeg indi bagaas yeeg yëpp rek incha allahu Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sargal ñu ngi lay tatagal waaye itam ñu ngi lay sant bu baax a baax ci teew bi nga teew ci sunu biir ngoom yàlla na yàlla fay la yow moom nag mu teewal fi xalifa général bu pal suñu baay alxaaji Ousmane Ngom nga xamante ni moom mi daaw moo ko fi teewaloon waaye itam teewal teewal fi suñu bay docteur Mouhamad Bassir Ngom nga xamante ni yàlla xam na ne ngant ngant lu rëy moo ko téye waaye ren dafa façon yéen a ñëw teew fii ci suñu biir nekk ak ñun yàlla rek moo ko dogalul waaye nag sëriñ boo demee nga xamalal ni ko daal kontaan nañ bég nañ tey doyloo nañ teewal bi nga ko fi teewal wax dëgg yàlla doy nga ñu sëkk ngom ndax ñoo yow dëkk xam nañ la bu baax a baax kon nag yàlla na yàlla fay ko yiw di sunu xarit bu nu gëj a gis namoon ko lool koo xam ne incha allahu laa jarul sax présenté wallaay jarul présenté su yàlla dogee mu jot ci waxukaay bi bu àddoo ñëpp dinañ xam ni dëgg-dëgg kii moom ci ëttu Seydal Xaaji Maalik la bokk ndax am na ëtt boo xam ne ku fa bokk loo mën a wane lu dul xam-xam rek du safe waaye bu àddoo ñëpp dinañ xam ne borom xam-xam àdduna mooy suñu xarit suñu mbokk oustaz Habib Fall mii nga xam ni dëgg-dëgg nag suñu mbokk la suñu wëllëre la ku baax la ku disponible la waaye nag ku am yar la ku am yar la ku am yar la wax dëgg yàlla ku bëgg Seex Seyd El Hadji Malick ñu ngi lay nuyu oustaz ñu ngi lay nuyu di lay dalal bu baax a baax a baax di nuyu nag suñu baay yi nga xam ni yaraax tey amul lu leen ëpp ñu tudd ca rek suñu baay alxaaji mayekoor sàmb mi nga xam ne fu mu teew mel na ni seex seydi muhammadul mansuur si borom daara yi moo fa teew suñu ko tuddee mu yóbbaale mbooleem baay yi nga xamante ni ñu ngi ci kaw jàkkaarloo ak ñun di beral nag nuyoo nag ak sant di beral nag ngërëm wax dëgg yàlla te mbokk yi nag ñi may bëgg a wax su ma leen tuddee ñépp xam ni jar nañoo sant jar nañoo gërëm jar nañoo ñaanal ba suba ñoom la sëriñ Babacar si waxoon dëgg-dëgg yee yéenay pendal lu man tubéy tubay lu leen ma ci ijaaza lu leen ma ci xëccoo imam sonalu leen ma ci xëccoo ay chef de quartier yu kenn xamul te lu ñu woote lu diine ma sa woote jigéen ñee ci man ñu ngi leen di nuyu suñu yaay yu tedd yi ma bëgg nag sànni leen benn message balaa ñuy commencé gis ngeen ki taxawoon di way bi ñu ko woowee ne ko dañoo bëgg nga wayal ñu moom waxuñu temps ngeen may fay te it su ko waxoon it duñ ko ko fay kon nag ñu bégalee ko nag suy way lu ñu yor ñu miiraas suñu bopp def ko ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam moo valable ci oustaz bu tàmbalee incha allah bëgg naa daal ñu xaañ ko ba bu ëllëgee suñu ko nee yaraax buy ñëw day fàtte ay dàllam ndax mbégte gu muy yóbbaale incha allah yal na yàlla dogal loolu mbokk yi dafa guddi ba pare du ñu téye parole yi am na ñu ñu war a sant am na ñu ñu war a gërëm mais après dañ koy def ci ginnaaw su suñu président jëlee kàddu ba pare Cheikh Omar junj na ko léegi hastaala Diop yàlla na yàlla fay la yow yaakaar naa ni lii may wax ñun waa yaraax yëpp mën nañu koo seede dëkkul yaraax de waaye yaraax la dëkk moom day tey mel na ni ci dëkk bii la juddoo tey mel na ni li mu am yëpp ci dëkk bi la wax dëgg yàlla mbooloo mu toll nii ku leen mën a mobiliser ànd ak ñoom ci liggéey bu mel nii ñu ne koo koy liggéeyal nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa su ko waa dëkk ba yëgee fa nga bokk su ko waa dëkk ba yëgul fa nga bokk suñu président bi amuñu fayam sëriñ sagal nga ñu ba ci kanamu yàlla wax dëgg yàlla ànd nag ñun ci ngor ànd nag ñun ci njekk ànd nag ñun ci teraanga atum lëmm bés ba ñu defee lii daaw ba jóge fi dem la façon yéeney def daa burde bi mu nekk daa ira yàlla mi dara tëwul yàlla nangu loolu mu am ci itam ndigalu kilifa gu mat sëkk ñu ànd ak moom ci daaira bi daaw ba ren wax dëgg yàlla gisuñu dara lañ ko mën a xeebee mbokk yi yëpp xam nañ li may wax mu liggéeyal ñu itam liggéey boo xam ni dëgg-dëgg jaratul ñu fiy nekk di def assemblée général ñun xam nañ ni mooy suñu président te doy nañu ba yowmal xiyaam insha allahu taala hastaala moomu nag mbokk yi moom laa bëgg a jox kàddu mu ñëw rek am ñaari baat ñett yu mu sànnanteeg mbooloo mi su pare ku ñu war a sant ñu sant la gërëm la jox imaam mu ñaan jox imaam mu ñaan su ñaanee rek dañuy jox sëriñ bi dañuy jox oustaz directement mu duggal ñu nag ci waxtaan wi moom ak alaaji Seexu Omar ñooy xam fi ñuy jaar ak ni ñu koy defee suñu paree nag sëriñ bi dénkuñu kàddu yam ñu dénkoon daaw ñu yóbbaale ko incha allahu taala bëgg nañ daal tey yarax yëg ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci suñu biir teew na ci suñu biir Cheikh Seydal Hadji Malick teew na ci suñu biir Seydina amatiyaan yi Tidiane toog teew na ci suñu biir Serigne Babacar si mi ñu sopp ba tuddee ko suñu bopp itam teew na suñu biir hasta la kon nga jege si jàllaleel ñu kaddu yi nga xamante ni moom nga war a jàllale su paree ñu sant ñaanal jaru di way suba angaan ak ca di way suba ak ngoon ak ca njollo من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم mbokki jullit yi fi daje ñoo ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di wàccee seen wàccuwaay xam naa kàddu yi sax du nekk kàddu yu gudd kàddu yu gàtt rek lay doon ndax dafa am lu xakim ba waxoon dafa ni woon ku sa fees nga ni oxo oxo xëy na loolu moo ñu dal moo tax sax ñu nangu yëkkati kàddu ndax danoo gàntaloon lépp tekk ci loxo sunu oustaz mii di Birane Cissé ni ko doy nga nu si biir doy nga nu ci biti mais nag comme nag pexe amul kon ñu jéem yëkkati kàddu yu gàtt rek kàddu yi nag fi ma koy jëmale mooy kàddu ngërëm ginnaaw bi ma nuyoo sëriñ bi Mouhamadou Moustapha Ngom yaakaar naa waa Yarax xam nañ ko du gan seen biir ñëw na fi ñëwati fi bu nu paree ñu nuyu oustaz Habib Fall yaakaar naa ñi toog fii ñëpp kenn umpalewul oustaz Habib Fall képp koo xam ne yaa ngi seetaan télévision yi ku ne xam na ni Habib Fall mooy kan si kër Seydi Hadji Malick si mu nekk ci jàmbaar nekk boroom xam-xam nekk wàccee boppam kon oustaz ñoo ngi lay nuyu di la dalal di la wax marhaba di la wax dëkk bi sa dëkk la njaboot gi sa njaboot la maanaam say mbokki pas-pas rek ñoo fi nekk kon oustaz ñoo ngi lay nuyu baax di nuyu nag mbokk yi fi teew yépp di nuyu wax dëgg yàlla waa daayira Tijaan bu yaraax daayira tiijaan marché yaraax maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ndax woote yombul te dama woote ngeen ñëw ni ma acco ñoo la gën a bëgg mbir mi wax dëgg yàlla sëriñ bi soo demee nag ma waxal kilifa ya ni taala daal ma ngay sant di gërëm waa daayira bi ndax lu mel nii xam ngeen organiser ko yombul te bu doon man kese du ma ko def kon su nekk su melee nii dafa am ñu si jàpp ba yegg si fii ma lay xamal ni du ñëpp laa mën a lim mais dana am ay benn benn ma lim leen sant leen ku ma tudd rek kooku mën a yóbbaale si des ndax daayira bi dafa am bureau ñu structuré daayira bi bureau bi yëpp nag membre yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ci jàppale ngeen ma jàppale ma ngay commencé ci soxna yu tedd yi soxna yi laay commencé parce que kenn du ñoom soxna yi dama bëgg yéen ngeen jóg ngeen tàccu seen bopp tàccu leen seen bopp baax a baax baax ndax li ngeen def dafa rëy ma siy jiital présidente jigéen ñi muy soxna Ndey Ngom sëriñ bi mu nekk jàmbaar lool lool lool lool lool bari na tey fu daayere bi yegg ñu yaakaar maa maak fi yeggale fekk moom daf may jox ay idée muy jigéen ju man góor kon soxna Ndeye Ngom maa ngi koy gërëm bu baax ci kanamu sëriñ bi di sàkk ngeen ñaanalal ma ko yàlla di gërëm soxna sofi soxna Sophie caw maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant ndax wax dëgg yàlla chaque àllarba day bàyyi liggéeyam bàyyi léppam kër gu ne mu dugg fa di laaj ay alaba ñukay dajalé ku melna soxna Xadi Fay timit maa koy gëreum bu baax mom tamit bañ naka ba dafa jël bis si li muy liggéey ndax laaj alaba gi may gëreum ku ñuy wax Papa ndjay wax dëgg yalla mo nekk si biir marché bi mom tamit alar bu jot day tëj palaasam top dekk bi fu mu dugg fa ñàkkatee xib ba dama koy sëx yëram pour rek dajale ay 100 francs ay 200 yu nu man def suñu caisse kon Papa Ndiaye maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ñu am nag comité d'organisation comité d'organisation boobu ki nekk seen kanam muy mbay sekk dama bëgg daayira bi ngeen tàccul ma mbay sekk bu baax sëriñ bi maa ngi lay seedeel ni mbay sekk gërëm naa ko sant naa ko bu baax ndax xale la mais jàmbaar la wax dëgg yàlla amul sax jot mais fan yëpp dafa feebar ndax lan ndax dafa tooy ndax da bëgg affaire bi rek jag kon moom tamit maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm ñi topp si moom ñëpp nag ku mel na soxna Aram Jaañ soxna Asu Mareem soxna Jaara Njaay wax dëgg yàlla moom tamit jàmbaar la mais dafa sax xaw tawat ba tax na ñëwul ku mel na soxna Uli Fay moom tamit maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax te serigne bi ma ngi lay ñaan nga ñaanal ma ko yalla ndax dafa xaw tawat ku mel nan ci sar ma ngi koy gëreum di ko sant bax may timit di gërëm dañu am commission sage bo xam dafa nek ci daayira bi ku mel serigne labatal bëgg na timit ngeen tatchul mako ko baax bax ndax wax de yalla du won yoon sax xel tay mu tew fi ndax amon na ngant ndax ma nga won dekk ba jamono yëpp mais la mu def dekk ba dako dag ñëw pour fekke bis bi talul lekk talul naan talul dara ndax pour lii jat démb man ak moom ñoo nekk fii ak ku ñuy wax Iba Géen ak ku ñuy wax Kaldu Mbakke ba deux heures du matin pour defar nag bi kon moom tamit vraiment maa ngi koy sant di gërëm Babacar Mbay ñu koy wax jeego yaakaar naa fii ñëpp xam nañ ko maa ngi koy gërëm bu baax moom tamit jàmbaar la fu ne dem na fa talul lekk talul naan pour lii lépp a kon daal sëriñ bi xëy na ñëpp sax mënuma leen tudd ku mel na yu ak Modou Sy ak Ablaye Sy ak Baye Ale Sy wax dëgg yàlla ñoom ñëpp mënuma lim ñëpp sax parce que su ma limee dinaa juum parce que daal daayira bi daal ñoom ñëpp jàmbaroon kon nag sëriñ bi ma di la seedeel ni équipe boobu ñoom ñooy ñi ma gunge woon pour ma ànd ak ñoom liggéey ma lay wax ni nag dama tudd seen tur rek mais am na ñoo xam ne ñoo ngi si biir ñoo gën a jàmbaare foofu te kenn xamu leen ku mel na Mansour Diagne boolewul dara ak wax jël alalam di def te bëggul koo tudd maa ngi koy gërëm moom di ko sant bu baax a baax a baax sëriñ bi daal ñooñu laa waxoon danaa leen sant bu baax a baax a baax di la seedeel ni ñooñu laa àndal ba taxawal lii ma taxawal ndax bu dee taala jóg kese yaakaar naa lii moom mënuma ko sëriñ bi dafa am koo xam ne tamit danaa ko tudd falaa doon jëm si muy Matar Gaye Sébi Kotaan muy waaju baax dëkk Sébi Kotaan ñëw fii sama palaas ñuy waxtaan ci waxu taalibe Cheikh ma du ko dugalal ay son ba ma wax ko ni ko daaw defoon naa fi burdu mu ni ma bokk naa bokk naa jël naa engagement bokk ba mu bokkee ba léegi li muy def ci daayira bi man duma ko wax ndax bëggul koo wax ma di ko gërëm ma nga jógee ba Sébi Kotaan mi ngi and ak soxnam ak delegation bu tag baye lepp ñew fi kon serign bi ma dila wax ni Matar gay momu dal bëgg na nga ñaanal na bi sama mak sama xarit di sama mbokk der di mbokk lepp ma ngi koy gëreum muy ko neex sago diko oyef bu ko neexon tey ji na ngant ndax pal dañuy gam xalifa bi jox ko cër bu rëy mu di ko doxal mais mu ni ma sañu ma bàyyi yaraax di dem paal xanaa damay dox mission ba mission bi jeex may sogam dem kon vraiment moom mi tey man dama koy sago ndax mbokk mu neex a sago la boo ko fekkee fu mu nekk doo rus kon sëñ Moustapha maa ngi lay sant bu baax di la gërëm maa ngi lay ziyaara di la wax ni sama wala rek yow du dog du dog du dog mukk incha allah sëñ Bachir Ngom di porte parole maam Seydi Hadji Rawane Ngom démb woo na ma daanaka ma deux heures temps ñuy waxtaan mu ni ma sëñ Moustapha dina ñëw ndax dama war a ñëw mais dama ngant mais sëñ Moustapha doy na ma si biir doy na ma si biti doy na xalifa bi doy na waa Paal doy na waa waa Tiwaawan tey jii moo fi toogal waa Paal moo fi toogal waa Tiwaawan ndax am nañu sant si ñoo xam ne dañ dana doon teew mais dañ ne sëñ Moustapha Ngom fu mu teew ñun amuñu fa kaddu kon moom doy na ñëpp ma di ko gërëm bu baax di ko sant Sering bi ma di la nit sama xarit di sama rak di sama mbok serigne Codé Ngom mom timit di sen di seut di Seydi hadjarat Ngom mi ngi ni tok mbokk yi kadui mangi moo doon yi ma ngi wat di gërëm wa daaira Tidiane bu marché yara di gërëm timit monsieur le maire Babacar Mbeng mangi ngi ñaan mbolo mi dama len di ñaan ngeen tàccul ma monsieur le maire Babacar Mbeng serigne mustapha so deme ci xalif ba na nga wax ni kuni wax monsieur le maire Babacar Mbeng ma ngay liggéey yarax ma ngay jàppale wa yarax ma ngay jàppale ña nek sa marché yarax difa jaay kon monsieur le maire ñogi sàkku ci ci yow so deme nga wax khalifa nanu ko ñaanal ndax liggéey bu reuy bi mu sumbu ci yarax gi mu yeggale ko ak sagom yeggale ko ak tey bakanam te xamna naa ne monsieur le maire bu ngeen ko renouveler sen confiance jàppale ko wóolu ko dana defar yaraax man de fa ma dëkk maire la mais monsieur le maire li muy def fi yaraax su ma seyoon maire bu ma dëkkal mu def lu mel noonu kon monsieur le maire daal vraiment ñoo ngi koy sant di ko gërëm jàpp na si bis bi nag am na fi délégation bu takk ñoo ngi si mbooloo mi toog kon ñoo ngi koy gërëm di ko sant asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. imam tafsir ali ibn sall neena mu ngi nuyu mbolo mi di yëkkati kaddu gi gëna tedd gëna a gëna ci julit bu nekk ak moromam mu di kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu te it kaddu yi du yag kum bobu ñu wax kum boobu ñu wax kilifa gi lañ ci kilifa gi lañu ci jital ak ñi mo andantel ñepp mom serigne Moustapha Ngom mom mo leen xam ku ci nekk mu partagé ku ci nekk nag mu partagé la ci li nga ci am. sañ mu ne ndax sañuñu loolu. kay. comme comme ñun xamuñu leen. moom xam na leen. bu ko jotee. bu ko jotee moom. mu partagé leen ko. ku ku ci ne la nga ca am mu jox la ko. kon nag sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara. di lay yéegal itam ci sa yéegukaay yi nëga ni daaw teewoon nañu fii ak yow waaye ndëga ni déwén yal nañ fi teewaatee nii ak yow amin ak képp nag ko fi teewoon ak ñi fi teew ren te teewuñu woon ak ñi fi teew ren te teewuñu daaw ñëpp yal nañ fi teewaat déwén amin bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi nag mbir mi nag dafa yaatu lool toolu diine la toolu diine nag képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah képp kuy an laa ilaaha illallah yow yaa ngi ci biir jëlal sa gopp ngay bay sa waar rek ngay bay sa waar rek di bay rek dafa yaatu dafa yaatu. woo ci jël rek baax na. tabaarakallaahu. nuyu ñëpp nag. nuyu imaam nee na mu ngi nuyu ñëpp nag. bu ñu nee ñëpp. bu ñu mi cuune. Aliou Sall mi dina naan ndax man ci laa bokk. dina ni ndax man ci laa bokk. waaye nag ñëpp moom daj na ñëpp. góor ak jigéen ak jigéen. mag ak ndaw dëkk yéeg. ku fi dëkkul ñi soreek ñi jege ñépp rek tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin imaam mu ne mu ngi laaj weer wi mooy ban weer aha kay mooy mawlid weeru mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy rabiul awal mooy weeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata fan ci weer wi tey mooy juróom-ñetteelu fan ci weer wi bés bi mooy ban mooy sam dimanche dimanche waaw heure bi mooy ban heure vingt-deux heures vingt-trois heures suñu borom subhaanahu borom nag subhaanahu wa taala ci yërmandeem ci yërmandeem ci ñeewante jaamam ci mbaaxam ci barke sayyiduna muhammad ñun ñëpp yàlla nañu fi teew yi nii déwén amin ku ca nekk loo doon yootu te mu neex yàlla yàlla na la ca yàlla jàppale ñu ngi nuyu nag waa marché bi yëpp jigéen ak góor jigéen ak góor mag ak ndaw ku ci nekk loo yëngatu rek yàlla na la ca yàlla fekk bi jaahi rasulillahi xaasatan nag ñu ngi nuyu nag borom yëf yi ala kulli alin nag mbooloo mu nekk faw am ku nekk ca kanam ña ña ca des topp ca mooy ca jàkk ja ca jumaa ja ca penc ma waaye moom mi waaye moom xaas taala Diop mi xalaatam rafet na torop pas-pasam rafet na torop pas-pasam dëggu na itam torop taalibe bu dëggu la fa sidqu mu ne sëriñ Babacar si dafa wax ni dëggu mooy taaru taalibe ndax ca lay amee la mu bëgg waaye boo melee ni ku sàggan al tafsir Alioune Sall jàpp tey jàpp bàyyi suba jàpp gannaaw suba jàppaat beneen yow jàppuloo bàyyiwuloo doo am dara yal nañ ci yàlla musal kon nag moom xastaala fi mu jàpp ak mbooloom mi ak mbooloo mi koy dimbali yépp tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin Ah, moo ñëw kër ga. ah moo ñëw kër ga. ànd ak délégation. ànd ak délégation. bu mat délégation. délégation bu mat délégation. bu yëngu ci diine ji ak tarixa bi comme. yëngu ci diine ji ak tarixa bi comme moom ni mu ciy yëngatoo. nuyoo nuyoo. góor gi de yow la ñu gi de yow la seet si woon. ah ma ne ah, leen bismillah. ku am gan. teeru ko. moom la yonent bi sallallahu alayhi wa wax. mu ne ma papa li ma indi mooy. xanaa nisër rek li may def baax xanaa nisër rek te am yaakaar ni li ñuy def baax na. ma ne ko ah mu ne ma nëgë ni daaw. ma ne ko ah mu ne ma nëgë ni defoon nañu burde ca defoon nañu burde ca marché ba. ndekete burde ba. ndekete burde ba. tabaarakallahu. tabaarakallahu. yàlla barkeel na ko yàlla barkeel na ko. far waa marché bi. far waa marché bi. ku ci yëngatu ku ci yëngatu. góor ak jigéen. ñépp ñëw nañu ne nañu ko def daaira xas taala du yàmm wax loolu loolu moo tax nag ren loolu moo tax nag ren mbir yi doy na waar mbir yi doy na waar yàlla indi na sabab yàlla indi na sabab tax na lépp séparé na lépp séparé wu na waaye lii moom mën nañ koo def. waaye lii moom mën nañ koo def. ñu bëgg ko yaatal nag. ñu koo yaatal nag. ba bu boobaa. ba bu boobaa. yéen ñi fi nekkal. ñi fi nekkal. sayyiduna Muhammad sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa su boobaa ngeen ñëw rek. man caa teew. ma ne ko ma ne ko waa baax na incha allahu. incha allahu boobu nag. boo ko xasee wax. bés bu bés ba jotee. te demuloo te demuloo. amoo benn toor amoo benn toor. ndax insha allahu nga waxoon nga waxoon. ñàkk ñëw ba nag. ñàkk ñëw ba nag. kon soobul yàlla. kon soobul yàlla. parce que. moo tax jullit dafay moo tax jullit day respecté insha allah. su ko defee ñu ngi koy gërëm bu baax su ko defee ñu koy gërëm bu baax. ak mbooleem ñi mu àndal. ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp. ku fi def sa dërëm. ku fi def sa dërëm. yal na yàlla far ak yow amin bul ko ñàkkati mukk amin kon nag suma salaatu wa salaamu ala rasulillahi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu إمام بقلبه قل ما كايعتن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu bokki yarax yépp di leen ziyaara di ci jiital nuyoo bi suñu imam mi toog di suñu wayjur di ko ñaanal yàlla suñu borom sàmmal ñu ko mu gën a dund ci barke Seyduna Muhammad li mu ñaan fii léegi yal nañu yàlla dëggal loolu may ñu ñu gisewaat ci kaw dund ci kaw suuf déwén suñu paree ñu nuyu suñu sëriñ bii toog di sëriñ Moustapha Ngom dafa am lu ma baaxoo man gëm ko di ko def mooy képp ku ma yëg ni am nga loo ëmbal Seydul Xaaji Malick bëgg naa la mbëggeel goo xamante ni ci sama xol maanaam mënuma ko tànk mënuma ko wane waaye nag rawatina waa kër maam alxaaji rawxaan ngom ndax dañu am lien bu dëgër ak maam Cheikh Seydil Hadji Malick dinaa ci ñëw léegi ci kanam sëriñ bi maa ngi lay nuyu bu sëriñ Sidi Ahmad si bu Cheikh Seydi Aboubacar Mansour toogoon fii moom lay tàllal loxo bët boobu laa lay xoole moo tax ma tàllal la loxo ni la ñaanal bala maa jug di la nuyu di la ziyaara ak bokki paal yépp di nuyu mag ñii nekk ci kaw nuyu jigéen ñi téeméer yoon góor ñi benn yoon laa leen nuyu yéen di nuyu xaaji Taala Jóob bii toog ku bëgg kër Seydi Xaaji Malick la ku bëgg li mu doon la ci ay doom ngay yëge ni kii xërte lay waxe waaye loo doon liggéey yarax yokk ko ndax mbooloo mu doy nii mbaax rek a leen dajale du alal yàlla na yàlla dëgëral la maa ngi lay nuyu di la ziyaar di nuyu alxaaji Demba Fay mii ndax Demba man dama yëg cofeel gu ma ëmbal goo xamante ni léeg-léeg sax ma ni Demba daf may teg ba teg ma loo am duma ko attan leg leg mu woma ma téléphone ma xol appel bi dan ni démb suma ko jere duma arrêté te du mënuma ko bañu yel su ko defee mu jaar ma ma marché jaar ci tala di sama xarit di sama soppé di sama wolléré di nuyu nak ki may mujjël nak, da fay ko xamanteni dañu bokku lu bari bëggantu bëggandoko bokk ci kuréel yu bari yuñ bokk man ak moom di Cheikh Omar mii toog lenn dong laa ko jàppe mooy àdduna bi loo fi mën di ko wane am na ku la ko dàq te wanewu ko Cheikh Omar Sall mii ku lewet la ku dal la ku xam lim bëgg la yàlla na ko yàlla dimbali mboolam ak ñi mu àndal di gërëm ñépp xaaji parji bi juuf bi groupe boobu nga xam ni nit ñu bari bokk nañ ci ni dañ sopp Habib Fall Habib Fall amul ku ko sopp ku ko sopp Seydi Xaaji Malick ngay xool ci man ndax man bëgguma ku dul Seydi Xaaji Malick wax juma gëm la lu nit am lu mu bari bari bari te Alaaji Malick bokk ci man suur naa ko lu nit am lu mu néew néew te Seydul Xaaji Malick bokk ci yéene naa ci sama bopp ci biir ñoom ñu dajaloo di ay nit yu baax Europe Asie fu nekk ñu nekk fa ni dañu am cofeel ci man def groupe xaaji ji bi mii nekk ci koo xamante ni ku ci am passif la suñu yaay Daba Jóob ñoom ñépp teew nañu ngir jëmm yàlla ak bis bi Haji Baba sen fi la Baba Kar daf may wo ba sang mu ne ma def fexel ba bu la dara jalal nga baña dem ci tala amna won woon ngant lu rëy yoo xamante ni dama ko don ngantal ba pare dotuma wuy tala yalla yalla sutura ñi sen mam alhaji rawhan ngom dañuy gor jag saaw bu seex Seydou Hadji Malick góor gi seex ba Gueye nekk ca biir tool ba naan tool bi tàng na nit ñaa ngi dee négal ma dem ci Seydou Hadji Malick mu taw mu dikk fekk seex Seydou Hadji Malick fi mu toog mu ni ko Maodo tawal nit ñaa ngi dee سيد الحاج مالك تي مودستم مونيكو مان سوما بوجي ندوخ تي سما ساتال لا كوي نيان باي لين واخ يو اوبي مان دوما تاو يالاي تاو مو واخ كوكو نيات يون مام شيخ الحاج مالك ديفول بن رياكسيون مام الحاج روحان بوجي كيم بوجي سيد الحاج مالك مو خوس نيو تي سيد الحاج مالك ni ko Cheikh Marou Ba mii li muy wax mën nga ko li muy wax mën nga ko Seydou Hadji Malick ta maam rawaxaan ngoom ñëpp xam nañ ni wallu yàlla bu plafond la mu ni cas loxoom ci suuf si ngëpp ni ko si pépp suuf yi ba nekk la muy sàbbal diggante man yàlla man rawaxaan maa ngi koy dégg te loolu ameewu ma ko lu dul ci yow Seydou Hadji Malick kon tawal Seydou Hadji Malick jug ni tey parasol bi asamaan si wuri maa ngi ñëw de maa ngi ñëw Sidi Hadji Malick may ma rek ànd ak moom des gannaaw tey mu saf mu saf kaani de xaar ma tuuti maa la ko gën a bëgg duma ko may danga ma koy may ku ànd ak moom du des gannaaw Sidi Hadji Malick ku ànd ak moom du des gannaaw Sidi Hadji Malick ku ànd ak moom du des gannaaw Sidi Hadji Malick Sidi Hadji Malick wa de baax Sidi Hadji Malick ku ànd ak moom du des gannaaw tabarak ñu taxaw ci kaw ñu màgg Sidi Hadji Malick Sidi Hadji Malick Sidi Hadji Malick Sidi Hadji Malick to Demai! Cidade Malik, guarda desse canal Puxa pro Cidade male que vai cair no macaco. Puxa pro Cidade male que vai cair no macaco. Puxa pro Cidade Malik, Cidade Malik, Cidade Malik, Cidade Malik, Cidade quebrou, Thank you. Muhammad Rasulullah sopp Seydina Muhammad ku sopp Seydina Muhammad nee na ko Seydi Hadji Malick nee na ko Seydi Hadji Malick dama gaa loo def noonu la loo deful noonu la Seydi Hadji Malick dama gaa ngi noonu ku defe nii dama Seydi Hadji Malick dama ko sama xol moo dee sama xol maa ko bëgg Sidaji Malik, Sing Mustafa, Sing Mustafa, waaw waaw. aywa yoo dund doyul. sang bi dundal ba say may di baawaan. maa koy déggaan ci barke Seydina Muhammad. dundal ba say may di baawaan. dundal dundal ba say may di baawaan. dundal dundal ba say may di baawaan.

ربان كون المصطفى رئيسا لكل ما حافظ الروسا وقدم وفوق كل رقبا يوسع الله يوسع الله وسلم الخبا محمد رسول لم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي ثبت ان ربنا لم يرد مثل الله ومثله لا يرد له زياده له البراءه يوم على السوى لم يستطاع هو النبي والرسول والخليل maa ngi lay ñaanal yàlla nga dund yàlla nga dund ba say may di baawaat sans ans sans ordonnance sans xooj naan dundal dundal dundal lu bëri ma koy degaan di la ko ñaan ci barke Seydina Mouhamed daaw maa fi jàngoon nii ren maa fi jàngaan nii yàlla ay déwéni déwéni ma lay ñaanal nga ñaanal ma ku nekk ci marché bi di liggéey yàlla na yàlla defal jàmm jàmm mooy lépp jarul ñuy ñaanu ay millions ay liens bi yàlla ngeen am jàmm ci barke Seydina Mouhamed ku ci bañ jàmm yàlla la yàlla burdu ñetti mbir dañ caa nekk yoo xamante ni Seydou Hadji Malick yëg na ko ci biir burdu dama laaj benn ban bu njëkk bi kaddu rasulullahi dugg na ci burdu bankal ñaareel bi mooy burdu. am na bayit boo xamante ne képp ku koy jàng doo ñàkk nel ñaar ci burdu am na bayit boo xamante ni ku koy sikkar doo mooy yàlla nel ñett Seydi Hadji Malick ni ñett yi dafa ma intéressé bu dee bu bi mooy kàddu rasulillahi mi ci dugg ñaareel bi mooy kuy préparé gàmm di dem tiwaan war ngaa am loo def sa poos ñetteel bi mooy bëgguma ku mooy ku mooy tiwaawan si Moussa bëgguma ko mooy Tiwaawan imaamu Buseyri suñu borom da koo nattu mu daan woy naar yi amoon alal ci Égypte di leen fekk ci seen maxallaat yi di leen woy di leen tagg ñu koy may alal yàlla nattu ko moom imaamu Buseyri muy way ba benn bis feebar daf ko muy ŋàppati feebaru góom la mu tëdd moom imaamu bu séeri di wax ci xelam naan man bàyyi naa woy nit waaye su ma deewee ci digg digal bi su ma demee yàlla pine ma maa ngi ñaan yàlla may ma tawfiq ma mën a way rasulillahi تنين باين وين مكما سيغدل أمي تذكر جيراني بذي السلامي مجدت دم عن جرى من مقلتي بدمي دي غدل بتي بير مم إمام بوسيري مني فما بلع العلم نكي سانترالو خمخم فيه أجي نكلة رسول الله waaye ki may wax daal basharu nit la bi mu ko waxee tuuti moom imaamu Buseeri nee na mu mel ni ngelaw da koo jàpp mu mel ni ku nelaw nee na am ku ne ko pëkk pëkk ba mu yeew mu jox ko loxo ñoddi ko ba mu xool ko mu ne ko nga ni nit laa waaye wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi moom moom day moo raw ñëpp man lam yuxadda man lam yuxadda muhammadan man lam yuxadda muhammadan fi ilmi fal ilmu fi xasaaratin wa malaamu Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku wax ni yow ak rasulillahi yéen a yem ci xam-xam nee na xas nañu la dañ laa bëgg a xas moo tax ñu wax la lool kii daal annahu basharun nit kese la rasulullah ni ko ñaqeet ba mu gis منكم من نتلا واي وأنه خير خلق الله كلهم نتلا واي لو يلا بين ما كنتي جنل لولو موتا سيدي حاجي مالك جيل نيارل با جيل بي اموي رسول الله بريمير با نيارل بيغا خامني ku ko saxoo doo mooy yàlla wala boo jugoon di ko def danañ la dévier ba doo ko def man lii bi raddil jimaa ginnaaw ba ñëwee sanaa aw tagg minal haadi mu bàyyeekoo ca ka nga xam ne mooy gindi jaam yi di yàlla suñu borom mu tagg ko alayhi ci yow yonent yàlla Muhammad maa ngi ñëw ci bay bi Seydi Hadji Malick nag foofu ngay xamee ni ndakate yoo Maodo am na lu gën a neex burdu lu mën a wax Seydi Hadji Malick ne bi may xam rasulillahi rasulillahi nekkagul nit Hadji ma euh, Cheikh samam Seydi Hadji Malick ne moom bimi xam rasulillah bobu rasulillah nekul nit xam nga ñi nga dégg ñep ñi way ci rasulillah bi rasulillah juddo lañ ko way seri Hadji mal li tax mu garaw moy manifestation religieuse ci rew mi moko ko fi njëkk def dama ni seexu seexu dama ni rew mi di Sénégal la wax rew mi rew mi di Sénégal bi Maodo di gam manifestation religieuse amu fi amu fi moo a def ci réew mi li mu wax rasulillah yi génnal ba Égypte doo ko dégg fenn déglu ma ay baat ndax mën nga ñu nettali rasulillah mu ni doom takk leen bagage wàcce leen seeni jaratul dem Égypte demul tul dem Mauritanie dina deg ci réew mi ku naan alaaji Malick daa demoon Mauritanie may jàng jiw fo woon de ndax wa Mauritanie rawnu sayyid Hadji malik lolou la beug mu deg ko sayyid Hadji malik Mouhamad Ali al Yanqubi la doon seeti te Ali Yanqubi boobu bi ko Seydi Hadji Malick di seeti fukki tur ak ñaar la ko waroon a jox yu bokk ci tariqa bi nga xamni secret la ci tariqa bi mu jéggi moom Seydi Hadji Malick dugg Mauritanie dajeet Mouhamad Ali Yanqou bi mu jël Seydi Hadji Malick jox ko juróom-ñeenti tur te góor gi borom cër la kat waaye booba mi ngi nattu ndax Seydi Hadji Malick am na cër ci tariqa bi wala déet Ali Yanqou bi jox ko juróom-ñeenti tur tëdd ci guddi gi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane feeñu ko ni ko bu jéggee ci ndox mi ñu dégraté la Seydi Hadji Malick ni borom leket gi ma ni maam Cheikhul Hadji Malick góor gi defat moom noonu Seydi Hadji Malick di waaj a jéggi ndox mi Mouhamad Ali Yanqu bi dablu Seydi Hadji Malick بمام شيخ الحاج مالك نيوي مو جيل تور يديسون ديكو موتالي سيدو حاج مالك جزاك الله خيرا مام شيخ الحاج مالك تاخاو سي كانمو غور جي مونكو محمد علي ينقوبي دبلو سيدو حاج مالك ديكو جوخ لم كوي جوخ سيدو حاج مالك مونكو ni ko borom tur wi mottali na ma tur wi te ca jàllaabe moom Seydou Hadji Malick ni ko sama mbubb mi woyof na mais man Seydou Hadji Malick ku ma bëgg yonent bi bëgg la Cheikh bëgg la ku ma bañ yonent bi bañ la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bañ la منزلنا فرنا على الإبن بعد ما حبت وجه الدهر منبسط لنا بفيدك والتيسير مسرور وحلين سنمم واو واو ينبى وحلين اللول وابخد ما حبتا وجه الدهر منبسط لنا بفيديك وتيسير مسرود واو واو مودي عندو لبروي داني دفلني لخلانا بي خليفة ببايا منيلنا بي فايديك وتيسيره مسرورو مني بي فايديك خليفة ببايا منيلنا waayaa rax def leen nii loxo laana bi fay diika muhammadu mansuur ne lana bi fay diika wa taysiiru masroodo muni bi fay diika muhammadu mansuur ne سيد الحاج مالك يودل زينت سنناتا من لولاه ما برزت شمس نهري ولا بدر ولا هود نبي فيديك خليفة ببا يمني gaañi def leen nii loxo kullu lu ishaaratin aywa ay saq kuy saqul baa Eu não tenho fazer isso.